monsieur le commissaire divisionnaire Assirou le commissaire sortant monsieur le commissaire Amidou le commissaire spécial intérimaire monsieur le commissaire Tchoba commissaire du commissariat de Ndamatou Monsieur le commissaire Ndiogou messieurs les commissaires, messieurs les sous-officiers, messieurs les officiers, gradés, gardiens de la paix, chers ASP, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Nous sommes tous di

xam nañ ne service commandé lañ nekk mais lépp li nga xam ne mooy commandement dama leen di seereel ne doxul woon suñu diggante suñu diggante li fi doxoon moom mooy management daf ñu daan manager daf ñu daan wan yoon daf ñu daan teete daf ñu daan orienté daf ñu daan conseillé dañoo xaw a dëng dañuy daf daan dañ daan def sax léeg-léeg yenn kii yenn njome mu wooñu wax ñu ñu xam ne fotti nañ tey loolu dootuñ ko defati nit boobu bu lay liggéey loolu da ngay am yéene bi même su nekkoon ne vingt jot na mën na la ñëwal liggéey si booy ñëw da ngay ñëw avec xol bu neex da ngay ñëw ci fierté parce que xam nga ne kii di lay liggéeyloo gënu laa gënu laa bokk bëgg service bi gënu laa bokk service bi mooy sa kilifa mais jàppoo commandement bi yow yow papa bi nga gis pour ñenn ñi yow mag nga gis pour ñeneen ñi vraiment c'est avec un pincement de cœur commissaire que nga fiy jóge su nekkonte ne tey par exemple ñun ñooy décider non doo doo doo dem wala boog doo gaaw a dem ah, waaw parce que am nay commissaires yu fi jaaroon bëgguñu woon ñu dem Mais comme dit l'adage, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Comme nous le waxee les hommes passent, mais les institutions demeurent. commissaire Bini, commissaire Bassirou Sarr que na commissaire boo de ne ak dafa dëggu dafa dëggu day dox de goût tout le temps ku Nous, ñun ñoo ngi fi ni nekk ak moom nekk ci jàmm. mais bu ñu duggee si biir il va te la vérité ba nga yaakaar ne non xanaa du kii moom moo génnoon léegi ci dëgg rek lay dox yàgg na ma woo biroom ñuy ñëw am na ay services yu bari dafa ko dénkoon yàgg naa ñuy woo biroom ñuy ñëw ci dëgg lépp ci dëgg la koy teg lépp tout ci dëgg la koy teg te dalay inciter à ce que yow nga nekk si dëgg dalay inciter à ce que yow nga dox si dëgg mu bëgg ñëpp. il est amoureux de tout le monde ñëpp la Le service yi fi y a la section bi nga je ne moom maa jiite moom section des accidents passeport service yi fi nekk fii yëpp kenn ku que nekk da nga ne Bassirou chaque fois excusez-moi bal ma commissaire parce que je vais tutoyer Bassirou Sarr parce que da nga travail, wul benn chefferie si ñun da nga tout le temps suñu grand nga dañu montrer tout le temps dama man dañ ma dénk kër gi mais kër gi seen kër la vraiment ñu ngi lay remercier ñu ngi lay ñaanal jàmm ñu ngi lay ñaanal fu nga jëm yàlla na fi yow yàlla jublu ñu ngi lay ñaanal fu nga jëm yàlla na fa yow yàlla jublu commissaire vraiment di laa xamal na la ñun bëgg nañ la lool lool lool looloo tax na loolu mas a def loo guddi ak bëccëg musuñ ci xaar musuñ ci xaar nañ noo avez wala on fait te service service le mot servir amul agent bu nekk dans les trois commissariats ou bien benn gradé commissaire bu est dans les trois commissariats boo xam ne commissaire serviru la commissaire day servir tout le monde amul amul su fekkee am na na kenn ku wax ne am amul day servir ñëpp ca la nga xam ne moom nga moom moom nga moom nga euh, soxla ca jamono jooju yàggul dara suñ benn agent doon na dem doon dem euh, congé doon na dem permission daal di def choc si yoon bi automatiquement yi ma dire dépêche-toi rapidement nga dem toppatoo ji ko ma dem ba Kaffrine ba ba Kaffrine

des trois commissariats à mon nom personnel. Voilà. Donc, au commissaire euh, rentrant, le commissaire Djegansen, nous avons le jam. Nous avons dit peut-être mais nous sommes là à tes côtés grands. Nous on là. ni du yomb. police yombul. police dafa paradoxal. dafa noble et dafa noble yaa ngi dimbali nit yi sa xol di mais dafa ingrat en même temps parce que nit a ngi lay wax di la sànni xeer quelque part sànni xeer yooyu mooy lay charge de police moom sax état bi sax dafa xam ne ñu ngi sànni xeer moo tax moom ñu koy fay comprendre ngeen donc vraiment ñu ngi koy wax ne ko ñun ñoom ngi ci sa ginnaaw la commissaire entrant on est là comme ni ñu nekkee woon ci ci ginnaaw commissaire Bassirou Sarr du ñu daw du service bi moo ñu ñor dans l'honneur au service de la loi bi nga xam ne moom mooy suñu devise ñoo ngi si ak yow di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen jaajëfal yéen ñëpp merci à vous tous